lu doy waar am ci dëkk bu sell bi di Touba ay sëriñu daara nu dajale leen ci benn bërëb doon leen wàcceloo ay kaamil gannaaw gi lañu xam ne ndekete ki leen gurguroon lam ci jublu weesuwul jàppale Tayru Sarr di wax ne dañoo daje woon doon jàng alxuraan di ñaanal ku ñuy wax Tayru Sarr sëriñ daara yi nekk Touba ci turu daarul alimul xabiir te sëriñ daar yooyu ñu ci tudd xamuñu Tayru Sarr tey xamuñu ko ëllëg mosuñoo jëflanteeg moom mosuñoo gisee moom benn nit moo ñëw boo xam ne ca seen biir la bokk ne damaa bëgg ngeen wàcceel ma kaamil fii ci daara ji woo ay yeneen sëriñ daara ñu teewe ko bi ñuy jàng alxuraan tudduñ fa nit ñoom ñi doon jàng alxuraan ji jàng nañ alxuraan ba jóge fa ca ëllëg sa la leen ay nit woo téléphone na leen am na ab vidéo buy tourné ci internet bi ñu wax ne dangeen daje a dajee woon yéen sëriñ daara yi di jàngal Tahirou kaamil te ñoom yëguñu tinuñu ginnaaw bi it am na ku ñuy wax Masata Jaxate ànd ak mbooloo dem ba ci buntu daara ja mu taxaw fa def déclaration ci turu Daaru Alimul Xabir ne ñoom ñoo dajee ñoo yeneen i sëriñ daara doon jàngal Tahirou Sarr ay kaamil Masata Jaxate moomu daara ji xamu ko mës sa moom xamuñ ko sax miinuñ ko sax ci daara moom Masata Jaxate ci boppam miinuñ ko ci daara ñu jàng alxuraan ba noppi nga wëlbati ko dem def déclaration ci seen tur ne diw lañ doon jàngal alxuraan te diw moomee ñoom diw moomee ngay tudd ca kaamil ba ñoom yëguñu tinuñu loola jëf ju ñaawla joo xam ne loola dañoo taxaw fii ngir dénoncé ko. Serigne Mor mbay ak ñi mu àndal daal di fësal ni seen naqar dafa yokk ndaxte keneen moo yëkkati ay kàddu di wax ne ñoom ay sëriñu daara yu bokk ci Pastef lañu. bi ko ñaaree nit mooy am na ay nit ñu def déclaration maanaam conférence de presse ay acteurs politiques bokk ci parti Pastef di wax ne ña dajee woon ca daaru alimul xabir doon jàng alxuraan ay nit la ñoo xam ne ñu ngi bokkoon ci waa Pastef dañu leen a nax dajale leen doon leen jàngaloo alxuraan ngir ñu ñaanal Ousmane Sonko ab safaan ñu di leen xamal ne daaru alimul xabir xamut Ousmane Sonko xamut Tahirou Sarr farul ak parti au pouvoir farul ak opposition moom alxuraan la faral ci lay xëy ci lay gont lu ñu leen tudd lu dul alxuraan dañu leen a toon tudd leen ca waaye xamuñ dara lu dul daf ne leen damaa bëgg ngeen wàccal ma alxuraan te ci seen biir la bokk te daana leen ko defloo ba ñu ko defee ba noppi ñoom ñoo génn def seen déclaration ne Tahirou Sarr lañ doon jàngal alxuraan loolu ñoom ñu ko wax ñoom la engagé waaye engagé wu daara ji ndax daara ji àndut ak pouvoir àndut ak opposition yàlla la àndal ak alxuraanul karim bëggoon a giifal seenu maire taxoon leen dellu ci daara alimul xabiir fësal ne jàppale Tahirou Sarr jàppalewun Ousmane Sonko ñoom kay dundal diine mooy li leen ñor